mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyowaat bu baax di leen siyaara di leen nuyoo fii ci Paaleen fii ci kër Serigne Cheikh Fall Ndigal ci juróom-ñetti fani koor gi njabootu maam si Ibrahima Fall gi di taxawu ndogo yi nga xam ne ndigal li moo ngi jógee ci Serigne Touba mu digal ko maam si Ibrahima Fall ne ko damay séntu gan Cheikh Ibrahima Fall daal di wax ne eh, sëñ Bamba ay ndogu la may wax waaye sama ndogu yooyu ku ma ci jox lu toll ne tànk dinaa la fa defal lu dootul yàqu te boo faatoo ma tàbbal la àjjana loolu moo waral nag ñuy wër mbooleem buntu kër maam si Ibrahima Fall yëpp tey nag ñu ñëw ci kër koo xam ne jàmbaar la lool ci yoon wi ñu di ko dàkkante leen ndigal kër Serigne Cheikh Ndigal Fall ñu fas yéene jëlal ndogo yi nga xam ne mi ngi koy togg di ko yóbbul sëñ Moustapha Ndiagne moom sëñ Bakki Soxna Lo waaye ànd ak mbooloo mi eh, sëriñ bi eh, ñu koy siyaar baax di ko ñaanal nag suñ borom yàggal ko fi loolu te wéral ko gis ngeen noir blanc yi waaye gis ngeen kër gi heure bi ni muy mel dem ci waañ bi léegi jëlal leen liggéey bi nga xam ne soxna yi ñu ngi koy liggéey waxtaan ak jëwriñ yi waaye dañ waxtaan ak jëwriñ ji nga xam ne sëriñ bi jox na ko kàddu ngir mu yaatal ko ci mboolem eh, taalibe yi kon noonu la ñuy ànd ak yéen dugg ci biir xool liggéey bi dellu si

nuyuwaat baax di leen siyaara euh, tey la juróom-ñetti fan ñu taxaw fii ci waañu kër Serigne Cheikh Ndigal Fall euh, waañu kër Serigne Cheikh Ndigal Fall di ko ñaanal baax suñu boroom yàggal ko lool te wéral ko gis ngeen soxna yi ak góor yàlla yi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci waañ bi euh, di togg xéwal yi nga xamante ni moo jëm ci Serigne tubaa ñu taxaw ak Serigne Mbaye Guèye mi nga xam ne at mu jot dañ ko fiy fekk sëñ bi dañu booleek moom. ci li nga xam ne yore na ko ci waañ wi jiite mboolem koo xamante ne yaa ngi liggéey ci waañ wi sëñ Bay ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar di la laaj nan ngeen taxawee liggéeyu kër sëñ Cheikh Fall Ndigal ay at ba tey jii nga xamante ni fi lañ agsi tey. Ah, ku baax ñu ñu ngi siyaar bu baax di ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér di ñaan sëñ Xalifa Modou Mbenda Fall mu yàgg fi sëñ bi Modou Mbenda mu yàgg fi lool te wér di ñaan it suñu wase la suñu bunt ci yoon wi di sëriñ Cheikh Ndigal Fall mu yàgg fi ndax moom day lii nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi woon rek la nekk ndax ndogu day kenn ku ne xamee na ko Cheikh ma Fall ah moom yoon woowu rek laaw li waral nag kër gi ñu jiite ndog yi nii ñu de kër gi mooguñu fi waaye nag suñu waajuroo ko jiite woon kolleer gu gën a xam ni ñoom ci ñoom rek la fekk baax waaw loolu moo waral ñuy jiite ndog yi ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ndog yi nag bu ma xëyee damay camion bee ngay gis dama koy chargé nag ba mu fees dell mu yóbbu bétuwaar ndax sëñ bi kat dañ lu jëm ko sëñ dafa war a sell fii du ma ko defaree ci kër gi bett war laa ko yóbbu vétérinaire bi xool ko ba lépp tegu ci yoon ñu defar ko ba mu yegg ñu doog a ñëw ci kër gi bu ma ñëwee fajar jigéen ñi jóg taxaw li nga gis waa ji ni mel nii ñoo koy raxas ba mu son sent ba mu son set lool ñu doog koo taal loolu moom lañ nekk ci waañ bi te di ñaanal sëñ bu yàgg fi ah, ndax kat ndogu boog loo xam lu yor sëñ Touba daa war a sell boo gisee kër gi ni mu demee nii. ñu ngi sant jigéen ñi ndax ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu fajar bu ma yeewoo fajar lu ma teel teel teel a ñëw daan leen fekk ñu toog di ma xaar te it ñu sell dong lañ bëgg waaw loolu moom mooy liggéey bi waaw loolu laal moom. ñu gis ne euh, ñoom am nañ passif boo xam ne mën naa am sax jëwrin ji am na moom du leen ko digal te dañ koy def. ah loolu bokk pas-pas la bokk pas-pas la ndax euh, kenn ku ne lu baax la yëkkati ak bëgg ndamul sëriñ bi. fii nii jigéen ñi lu ma ci nit mag mag ak gune yi ma nga xam moom laa àndal ci waañ bi lu ma leen mag mag mag mag balaa am lu ma xalaat sax bala ma ko bala maa def leen ndàngam ñu def loolu ndax bokk pas-pas gi ak bëgg-bëgg gi waaw ndax dañoo bëgg liggéey liggéey sëñ bi rek lañ leen ñor daal la ñor leen lu liggéey sëñ bi waaw moom dong daal moom lañ nekkee waaw. ngeen ànd ak jëwriñ yoo xam ne koy ànd ak ñoom sab dox war na gaaw rawatina euh, sax euh, ñu koy dàkkantelee ndigal. waaw loolu nga dëgg la ndax sëriñ Cheikh ndigal ko nag moom di nga dox boo bañee di nga dox boo boo bëggee di nga dox ndax li waral loolu sëriñ Cheikh ndigal mën ta ñàkk dox kuy sa maam Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall kuy sa waajur sëriñ Cheikh Fall Baye góor sëriñ Cheikh bu doxul tooñ fu mu jaar dox ànd ak moom sax boo ko defee force nga dox sëñ bi joxe ak liggéey sëriñ Tuubaa ak Cheikh Fall ku ko ci man ci Baye Fall du am ndax moom rek la bëgg sëriñ Cheikh Mbacke ko sëñ Cheikh Mbacke ku mu yar moom loolu ngay xam te da ko doon ci bàyyam bu baax ba ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu téwéer am na lu ma waroon wax sax loo xam waxuma ko waaye mënu ma ko cee ñàkk dugal ndax yaa ma ko fàttali ndax ci nii fi nekk dafa am ci nu sëriñ Mbacke Ngounda Fall mu sëñ Ngounda Fall rakam loo xam ne seen waajur yaa àndoon am na fi ci ñoo xam ne dañ koy day taal ba mu baax am ci ñu ci toppaat muy ci lu sëñ bi cikki mu sëñ Abdourahmane mu sëñ kooku waajuram ak sëñ Cheikh Fall àndoon li ci toppaat mooy cinul Baye Mahmoud Thiam daara ju mag gi magi taalib yi nga xam ne ñoo muritoon suñu Moustapha Fall mooy cin loolu Baye Mahmoud Thiam soxna Ndeye Fall mu daaru xafoor jiite ko ci li ci toppaat mooy cinul soxna yi sëñ seen digal dafa am cinul boppam am na fi cinul boppam loo xam soxna yoo ko yor loolu defati ci li ci toppaat mooy cinul ndaw li di cinul soxna Bintu jan mooy ñun taalibe dongo yi am na nag beneen cin bu ñëwaat cin bi ñëwaat mooy Serigne Moustapha Ndiol am na fi cin yal na yàlla yokk ah, sëñ Cheikh Modou Fall yal yàlla yokk leeram ndax moo yoroon cin loolu waaye bi mu ci cin yoratul cin yi sëñ Moustapha Ndiol yor ko ndigalum ah, ndigalum sëñ Moustapha Faty Kala cin li bàyyi góorum sëñ Cheikh Modou mi ngi cin li cin li jëwriñ ji sama baay daa yàlla na yàlla yokk leeram si Cheikh Modou jàmbaar la woon lool moom it si yoon wi jàmbaar la woon lool ju jéggal magam ji ju ànd magam ji soxna Ndeye Mbaye mii bëgg a jël kàddu soxna ma woon moo ko yoroon ba pare soxna Aminta Fall si Moustapha jur ko mu bokk ak moom lépp na nga xam daal kër gi sëñ bi ne ñaanal dongo yi ay balaa sëñ bee xalaat li muy laaj joxe ko balaa xalaat dara dara dara lu mu bëgg rek talibé joxe ko soxna yëpp soxna saa ngi ni taxaw waaye wóor na musuma ñëw ni ma li ni def mësu ko wax ci waañ kenn ku ne bëgg gi bëgg ni moom soxna ya ko raw lim leen di mag mag mag mag mag lu mu leen wax ñu def ko mba yàlla na yàlla yokk saxawaayam ñu ngi sant nag rek sëriñ bi yëpp seen taxawaay rafet na lool barke Cheikh Rahim Fall jaayëf soxna Ndeye euh, soxna Ndeye Mbaye taxawal jiite soxna yi fii ci waañu kër si seen ndigal comme niñ ko baaxoo waxee rek jigéen ñi yàgg nañoo doon jàmbaar ci lislaam rawatina ci yoonu murit waaye rawatina ci yoonu Baye Fall euh, ku bàyyi xel soxna yi nga xam ne nekkoon nañ kër maam Cheikh Ibrahima Fall di ay jàmbaar lool euh, di ñoo xam ne ñu am pasef lañ demoon ba am na koo xam ne maa ngi dégg ci Baye Ndiaga Diop euh, mas na wax ne Cheikh Ibrahima Fall mas na koo wax ne ko su ma fekkoon sëñ Bàmba di seexal jigéen ma seexal la waaye damaa fekku sëñ Bàmba di seexal jigéen loolu nag pas-pas boobu. dafa dox ba fii tey nga xamante ni mooy yoonu Baye Fall waaye fii nga xamante ni mooy kër Serigne Cheikh Ndigal soxna si nga jiite waañ bi euh, nan ngeen yore waañ bi fii ci kër Serigne Cheikh Fall Ndigal ay at ak soxna yi nga xam ne ñoo ngi liggéey foofu seqal liggéey. waaw ah, waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di delloo ñëpp njukkal fii ni nekk ci waañu mooy ak taalibe ak bi yar ak teggin yoo xam ne nag lu wér la ndax fi ñu toll nii lii may tuuti tuuti taxaw nii. ku ma ne nii la rek noona la fi mu toll nii paree nii cin lu ne dinaa dem taxaw mos ko xorom soppee dinaa la wax ku waddal danga ma fay ku yàq danga ma fay ñun loolu la ñuy doxee ci waañ boole kooku bi yar ak i teggin nangu ndigal nag barke sëñ Cheikh Fall ñëpp a nangu ndigal léegi nag ñi ngi sant sëñ Cheikh ndigal bu baax ak i rakkam ak sëñ Moustapha Ndiol mi nga xam ne magama moomoon cin li mu xam lu rafet yi yëkkatiwaat ci li tegaat ko sama loxo xam ne ni may yore woon ci li ñaawut mu delloowaat ma ko ma yoraat ci li ak ñëpp nag kenn manqué wut ñu ngi ko ànd ci bu rafet saa ñu koy togg ku mën a rosil da nga rosi ku mën a baal nga baal ku ma ne xolli nga xolli ku mën a tegal nga teg ñoom ñëpp a dégg ndigal ba ci ñii toog ku ci juba di woon tey su may seen a bàyyil barki Seera Faal du taxaw lépp da nga ko teg ci suuf. kon ñi ngi sant sëñ bi bu baax di sant donga yi ndax lu nu man lu ne rek te di ko def donga yi ci lan donga yee nu jàppale kon dañ leen di ñaan fan wu gudd ak ku wér ak fekke lépp ak bépp taalibe ak bépp sëriñ ñi ngi ñaanal ñëpp fan wu gudd ak ku wér yàlla bu kenn tàdd ay ati ati at ci doole seera faal sama maam ju baax. soxna nan ngeen nekk ci waañ bi ak yan heure ngeen i xëy si fii. heure yi ni xëy si fii ñun danañ xëy si fii sept heures ñii danañ xëy si huit heures ñii danañ xëy si neuf dama cee booloon alamaan nag waaye damaa mujj xam ne ñu sori naa leen yërëm ndax daa am ñu sori am ñu jege ñu sori nag da nga leen di yërëm waaw bu ndikkee rek nga bàyyi noonu. suñ xëyee lan la ñuy njëkk a def. Euh, ci waañ lan la ñuy njëkk a def ci waañ wi ndawal gi de bu essee moom la ñuy njëkk a raxas bu ñu ko raxasee ba mu set ñu mari ne ko defar teg suñ paree jëm ci pomme de terre bi ak soble si liggéey ko jël suñu mat raxas suñuy cin teg di xaar ndigal bu heure bi jotee rek ñu ba di ko taal. noonu daal la ñuy xëyee. ñu bëgg a xam euh, fi ne xéwal yi lan lay doon lan lay doon xéwal yi. xéwal yi lan lay doon yàpp lay doon pomme de terre soble. waaw ñambaar gin ci boole nag ah képp koo xam ne man nga bu sëñ bi defee ñaari saaku danga def saaku soble saaku pomme de terre soomef gàtt lay dolli ci biir ñun jigéen ñi ñoo ngi koy jëf waaw boole koo nag li ñu joxe di natt. di yokk ci cin li di suyeer bi ba si àjjuma kii bu jot fukki fan ak benn yi jot ñu tëral suñuy nag togg suñuy bool indi yokk boole koo gi sëñ waaw. may dégg ñuy wax ci dama ko laaj ma li ñuy yéem mooy dañuy togg xéwal yi ba mu baax te ñoom euh, duñ ci mos. duñ ci duñ ko laal. kenn du ko laal menn man mi déggoo ma la maa ci am fiitu taxaw di ko mos xorom si ndax booy togg di yëpp ñu baax war ngaa xam li mi saf lan la. moo tax may wër cin yëpp fi mu toll nii su ma paree ci yow nii dee ma xool damay wër yëpp di mos ba xam ëpp xorob ëpp na ba xam kaani ëpp na war wala poobar ëpp na lu ci manqué damay dolli ba mu yem noonu la ñuy xëyee ñun loolu la ñuy liggéeyal sëñ bi. fan ngeen toll fi ne. fi mu nii def na ndawal def bomb teer ak a des ci kaw nii ci lan toll. waaw kon daal ñu ngi waaj a pare pour yóbbu liggéey bi ci borom. ñu ngi waaj pare liggéey bi ci barab bi di déglu ndigal yàq andi. waaw ñoo ngi toog ak euh, Badiane Daba Fall moom Serigne Cheikh Fall Baye Góor di rek ci sëriñ bi euh, ñu fas yéene ko euh, dékk kàddu yi rek tuuti Badiane mu leeral ñu ci ànd gi nga xam ne ànd ngeen kook sëriñ bi ci bu yàgg ba léegi ci liggéey bi nga xamante ni moom lay liggéeyal seen waajur bu baax waaye seen maam ju baax ja. asalaamaaleykum mbokk taalibe waa Serigne Cheikh Fall Baye Góor ñu ngi sant yàlla junni ci yonent bi. sant sëriñ Tuubaa ak Cheikh Fall sant sëriñ Amdi Fall Modou Mbène xalifa général de Baye Fall waaye nag sant sëriñ Cheikh ndigal Baye góor bi nga xam ne mooy sunu bunt ci yoon wi nga sant di ko ñaanal te di ko gërëm yàlla may fi gudd fan ak wér yàlla boole na ko moom ndax nag taxaw nañu lool taxaw na ko sëriñ Cheikh Fall dëgg yàlla fu ñu taxaw dana siggi lépp lu sunu def rek sëriñ Cheikh ndigal def na ko ba romb lool kon sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko ndago yi mu koy taxaw ginnaaw bi fii sëñ Sa Fall jógee ba léegi mu ngi koy taxaw waaye gisuñ ci lenn loo xamante ne daal lu ñu lu ñu jaaxal la ànd ko rakk bi yëpp nag ñu bokk sëñ Cheikh Fall yu góor yee jigéen ñi ñu bool nag leen sant ñoom ñëpp di gërëm ñaan yàlla ñu teewee ko déwén ñu bare bare bare bare sant nañ donga yi taalibe yi suñu mbokk yi ñu bokkal sëñ Cheikh Fall góor ñëpp nga xam ne seen baay Cheikh Mouhamadou Moustapha leen jur te ànd ak moom ñëpp sant nañ ñëpp daal jëruñu ci kër gi yëpp daal sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp nee na gudd fan ak wér ñaan ñu teewee ko déwén yu bare bare sant soxna yi wax dëgg yàlla tamit seen taxawaay rafet na lool soxna yi moom bàyyiwuñ benn yoon ñoom tamit parce que ñu ngi laxas ay taxaw rek na sant nañ ñëpp daal jërëjëf. ci kër Serigne Cheikh Fall ndigal euh, doon jël si liggéey bi nga xam ne njabootu maam Serigne Fall ñu ngi koy def ci weeru koor gi yëpp euh, ñu ñëw doon saytu liggéey bi waaye ñëw sëriñ bi jox sëriñ Mbacke Ngounda nag kàddu ngir mu yëkkati kàddu gu jëm ci mboolem njaboot gi ak mboolem taalibe yi sëriñ bi ñoo ngi leen nuyu di la siyaar. ñoo leen di fay bu baax ci seen nuyoo boobu nuyoo ba màgg sant di leen bu baax a baax di kontaan ci teew gi fi teew fii di yëkkati kàddu ci kàddu gu sëriñ seen digal mu yàgg fi ci weer yàlla eggale ko ay mébétam ñu ànd ko moom ci barke Maam Cheikh Fall ba mu ne ne di sant mbokki talibé yëpp bàyyiwul kenn ñu ne ci réew mi ak ñu ne ci bitim réew di sant xam ne sëñ bi buñ koy wax talibé yi tax waaye talibé yi wax dëgg yàlla ñoom it jàmbaar lool wax dëgg yàlla li man lépp ñu ngi koy def lépp lu sëñ bi sonk rek ko daan ndax yéen ndax talibé yi kon yàlla yàlla dimbali nag ba ban ban ci bokk rek ci ñi tax sëñ bi daan waaw ndax fii ku fi ñëw wax dëgg yàlla sa xol sedd sëñ bi wax dëgg yàlla jàmbaar la am na Pastef bëgg na maamam nu naa liggéeyal Sëñ Tuubaa ñu ko ñaan rek mooy mu yàgg fi ci wér ànd ko rakk yi ak njaboot gi ak talibé yi yëpp rek xam ne lépp loo lépp lépp lu fi nekk rek talibé yi nag la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññ suñu bopp nag di leen ko ndox yaa soo ndox yaa ngi ko tàmbali fukki fan yu jëkk yi sax jàllagul di soññ ñëpp te di soññ sama bopp ku deful woon nga def ko defoon ca man doo leen nga dolli ndax ndogu moom rawale la rawale la kon nag nan fexe ba ñun yëpp ñu rawale ci suñu doole rawale ci suñu xel bu rafet rawale ci suñu suñu suñu alal waaw lu ci lu ci waay def rek mooy mooy mooy mooy li nga denc moo mooy li mooy li nga am lépp lu baax loo loo def rek mu di yiw lu mel ne ndox ñu togg ko waa kër Maam Cheikh Fall toppatoo ko ba mel ne war a mel ko waa kër si jox ko mbo jox eh, lépp lu ci waay def rek lépp lu ci waay def rek doo ko rek lépp lu ci def rek mooy mooy mooy li nga denc. kon nag yàlla suñu moom dimbali ban a ñëw ba a ba rawale baax di gërëm di gërëm seen kilifa yooyu di ñaan seen rajo bi yàlla na nekk yàlla lu fu egg rek yàlla gërëm leen seen taxawaay bu baax baax baax yi galañ yite way sunu sëriñ way yuy jariñ di ci sàkkuy ngërëm sëtu cheikh ibra la te ku gëm bàmba la sang bi gaynde la dama lay wax turam moo di sëñ cheikh ndigal mi saxoo jëfu ndigal kile jar di way di ci sàkkuy ngërëm ku di bay de war nga koroy moo di gor tadi góor moo di mbër mi fi semmal kemam mani sëñ seex ndigal dafa jub tey jubal aka dëgguy dëggal di ku feese xikam ku ko xam-xam ni kat dadi dëggi murit mani baay la

Huzala. mbokk yi jërëjëf euh, lii lañ leen jëlaloon fee nga xam ne mooy kër kër Serigne Cheikh Fall ndigal ànd ak ndogo yi waaye ñëw fii nga xamante ne mooy kër Serigne Mbacke Soxna Lo waaye Serigne bi jébbal ko ki nga xam ne moo fi toog jotaay Serigne Mbacke Soxna Lo di Serigne Moustapha Ndiagne di ñaan suñu borom yàggal ko lool euh, te ko gis ngeen yoon wi ni mu mel mbokki taalibe yi euh, taalibe sëriñ Cheikh ndigal yi Pastef bi nga xam ne ànd nañ ko ak turu yàlla wi nga xam ne moom la ñuy laytaaye ndogo yi moom la ñuy yanoo bool yi ak si fii nga xamante ni mooy kër Serigne euh, mbakki soxna loolu noonu lañ leen koy fas yéenee àndalaat rek ci mboolem buntu kër yi rek ànd ceeg yéen incha allahu rabi dara du ci rëcc ci weeru koor wi ak Baye Fall yi ni ñuy yóbboo ndogu wasalaamaaleykum wa rahmatullah